ngir al seeni loxo jëfandiku leen gel main Valda Valda Afrique moo leen di may Sud Nutrition salaamaaleykum mbokk déglukat yi docteur Bintou Cheikh Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi lay say Rosalie. tey si suñu chronique numéro 253 lu ñuy waxtaanee mooy naka la ñu mën a lekkee ngir wàññi risques yi ñu am ci am feebaru doyadi réunion roñoo mooy lan ak lan mooy seen njëriñ ci suñu yaram. waa roñoo ñaari euh, cër lañu yoo xamante ne ñu ngi nekk ci suñu wet yi benn bi benn bi ci bi wetu ndeyjoor bi beneen bi ci wetu càmmooñ bi euh, ñoom seen seen daal liggéey mooy de dañuy jël suñu deret segg ko. pour mën cee dindi lépp li nga xamante ne mooy ay salte yoo xam ne suñu yaram moo koy moo koy defar maanaam suñu yaram buy dox dafay dafay defar ay dafay dafay indi ay salte ci deret bi te roñoo yi ñoom ñooy dindi salté yooyu ñoo koy segg et puis dindi aussi lépp li nga xamante ne mooy euh, ndox ndox boo xam dafa ëpp ci deret bi ñoom tam ñoo koy dindi su ko defee euh, loolu yëpp day dem ci suñu saw ñu buñ ko sawee mu génn yaram bi. insuffisance rénale ñu koy wax doyadi roñoo nag moom mooy lan. waaw insuffisance rénale bi ñuy wax insuffisance rénale chronique maanaam mooy boo xam bu ñu demee ba nga xam ne roñoo yi euh, defatuñu seen liggéey na mu waree. Euh, donc euh, te loolu bu xa xasee ba commencé rek kenn dootul dellu gannaaw maanaam roñoo yi dañuy dem ba nga xam ne seen segg bañ doon segg dootuñu ko segg dootuñu segg deret bi ba mu set su ko defee salte yooyu mënoon wax ak ndox mu bari bi day des ci biir deret bi léegi nag mën nañ dem ba nga xamante ne roñoo bi roñoo yi liggéey liggéeyati euh, du tout maanaam dootuñu seggati du tout su ko defee bu boobaa ñu ne lii phase terminale la bu insuffisance rénale boobu nag la nit ki mu xam ne daf ko dal dafa war a dem ñu dialyser ko maanaam dañ koy bu ay ñetti yoon ci semaine bi dafay dem ñu branché ko ci benn machine boo machine boobu moom mooy def liggéeyu roñoo yi segg deret bi te il faut que bu bu ñu xasee ba toll ci phase boobu rek il faut que ñu dialyser parce que nit ki su amul dialyse rek juróom-ñetti fan rek dafay génn te nag ñun ñii fii Sénégal gis nañu ñu insuffisance rénale boobu mu ngi jox euh, vraiment doy na waar. lan mooy indi insuffisance rénale. alors ci lii ñaar yi gën a bari di indi feebaru rognon insuffisance rénale mooy diabète ak hypertension artérielle maanaam tension waaye il faut ñu xam ne ni am na kaawu insuffisance rénale yu bari yoo xamante ne kenn xamul lan moo ko indi. kon nag docteur naka la ñu mën a def ba wàññi suñu risque am insuffisance rénale jaarale ko ci suñu lekkin. li ma bëgg mooy joxe ay tegtal yoo xamante ne dina fexe ba ñun ñi ñu mën a sàmm suñu roñoo yi mën leen sàmm lu mu gën a yàggee ndax ñu des ak ñun suñu diiru dund te duñu feebar. li may njëkkee mooy nañu fexe ba wàññi bu baax a baax ñuy lekk ci xorom alors nañu xalaat rek tuuti gis nga normalement waruñoo euh, waruñu jéggi juróomi gramme xorom ci bés bi te ñun Sénégal xayma ne nañu que ñu ngi ci euh, au moins ñaar fukki gramme xorom par bés ndax ni ñuy lekkee euh, léegi ci wàññi xorom boobu nañu fexe ba di lekk des aliments frais maanaam ñu wàññi bu baax a baax li ñuy wax aliment industriel bépp ah, ñam boo xam ne dañ ko transformé nañu bàyyi saf-safal yi bàyyi bouillon cube yi nañu aussi bàyyi di dolli suñu ñam yi xorom ba nga xamante ne mën nañu dañuy dañuy euh, dañuy jot ci cafkawu xorom si dañu war a xorom juste pour que rek euh, ñam bi neex mais ñu bañ a sentir xorom bi et puis surtout bu ñuy lekk nañu euh, bañ a di dolli xorom wala dolli ay sauce yoo xamante ne dafa am so dafa am xorom ñaareel mooy nañu wàññi lépp di ndawal ndaxte ndawal ku lekk ndawal rek jàpp jën ginaar yaa ngi liggéey lu roñoo yi donc euh, nañu fexe ba suñuy lekk ndawal boobu normalement li ñu doy war na war na mën a war nañ ko mën a def teg suñu kaw loxo warul dépassé loolu euh, et puis bañ cee lekk lu bari d'un coup maanaam dafa war a nekk loo xam ne dañ koy vraiment di ko lekk par tuuti ci bés bi yëpp mu bés bi jeex ñetteel bi mooy dañ dëgg dañu war a naan ndox mu doy maanaam litre genn walla ba ñaari litre euh, te loolu ci bés bi yëpp lañ koy naan mais nañu moytu di naan ndox mu bari ci diir bu gàtt am na ñoo xam ni xewaloon nañ ko fi ba léegi sax am nañu koy def dañuy xëy ci suba si ci giiru benn waxtu ñu naan ñaari litre ndox defe na que ni dañuy dañuy euh, raxas seen seen roñoo yi raxasuñu seen roñoo yi dañ ko dañ leen di sonal ñeenteel bi mooy nañu fa nañu moytu sangara pour ñi naan sangara ñu jëfandikoo sangara nañ ko jéem a bàyyi wala boog ñu naan ci li gën a néew maanaam bu mu benn kaas ci bés bi juróomeel bi mooy ñëpp képp koo xamante ne am nga gis nañ da am graisse ci sa yaram ñu koy wax surpoids euh, am na solo ñooñu noonu fexe ba graisse bu wàññeeku ci seen yaram maanaam di lekk-lekk bu sell ba noppi di tàggat seen yaram te fi may mujjëlee nag mooy nañu def nànk ci euh, euh, garab yi maanaam littéralement garab ak ak reen yi ak ak herbe yaak yi ñuy jëfandikoo wala ñu ñuy tegtal ñuy ay xarit di tegtal ay ay euh, médecin traditionnel di tegtal parce que garab yooyu dañ ci war bala ñu koy jëfandikoo war nañu xam ñaata lañ ci war a naan war nañu xam kan moo ko warul naan parce que mooy li ñuy wax euh, contre-indication et puis war nañu xam aussi ndax garab bii may naan di di ko jëfandikoo mën na ma yàqal leneen donc loolu nañ ci bàyyi xel bu bare bu baree bari. nga fàttali suñu page Facebook. page Facebook bi c'est Sud euh, ñu leen di ñaax rek ngeen ñëw euh, laaj ñu seen i laaj euh, suggéré ñu ay thèmes te xam leen ni posté nañ fa ay ay chronique vidéo. may jaajëfal Val d'Afrique di la jaajëfal docteur Bintou Cheikh Seck. jërëjëf Rosalie. ngir seetal seen i loxo jëfandiku leen gel main Valda Val d'Afrique. moo leen doon may Sud Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre cette docteur Bintou Charsek, bonjour. Bonjour Rosalie. Chronique numéro 253, comment manger pour les risques d'insuffisance rénale. Que sont les reins et quelles sont leurs Alors, les reins sont deux organes qui sont situés de part et d'autre du bassin et dont la fonction principale est de filtrer notre sang pour éliminer à, à travers les urines ou l'urine l'excès d'eau et, surtout les déchets toxiques que l'organisme produit Alors, qu'est-ce que l'insuffisance rénale C'est une maladie chronique, c'est la perte chronique et progressive et en plus irréversible de la capacité de filtration des reins. Et donc, il y a une accumulation quand on a une insuffisance rénale de déchets et de fuites dans l'organisme. Alors, lorsque les reins ne fonctionnent plus du tout, euh, on dit que la maladie est en phase terminale. Donc, l'insuffisance rénale